salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi nuyu naa ñëpp seen mbokk la professeur Abbas maa ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp mu mel ni am na mbokk mu doon laajaat njëriñ yi nekk ci doom yi nebedaay yi waaw garabu saab-saab doom yi def naa def nañ ci waxtaan mos nañ def waxtaan ci nebedaay xaw na yàgg tuuti am am na sax lañ ci junjoon moom moom doom yi doom yi nga xam ne Euh, moom la ñuy jëlee ci garab ci garab gi waaw moom de lu bari bëri ferñeent la lu mel ni potassium lu mel ni calcium lu mel ni fer magnésium phosphore vitamine A da nga ko ci boo xoolee doom doom bu ndaw bi daam daam lu koy wër euh, su dee da nga kaa bëgg a jëfandikoo kon da nga koy xolli jël doom doom doom doom bu ndaw bi waaw ñu tuddee ko gerte gerte nebedaay bi nga yëy bu dee da nga kaa bëgg a jëfandikoo. waaw moom nag mënees nañ cee benn ñaar ñett ba juróom ci bés bi waaye ku ku ciy tàmbali nag danga ci jël lu yem rek benn ñaar par bés bu bëree ba bëri ñett ndax doom yu bari doole lañ bañ na ko ba nag boo ko jëfandikoo te lekkoo dara mu xaw laa yëngal tuuti kon balaa nga koy jëfandikoo dangay ngay lekk boo suur soo ndekkee nga jël benn soo reeree benn wala ndékki benn añ benn reer benn ñett mën nga dem ba juróom waaye toujours rek da ngay ci benn soo benn ngoon mënees nañ koo werit jël doom ya wal ko def ko sunguf gis nga boo koy wal soxlawul ngay xool li li doom bi soxlawu ko lépp rek waaw lépp rek sunguf soosu nag moom it mën nañ ko boole ci ñiy lekk mën nañ ko boole ci ñiy naan waaw mën nañ koo suy ci la ñuy lekk noo ko mën a jëfandikoo ci anam yooyu yëpp baax na jël ci digg kudd gu ndaw sayal ko ci meew naan wala sayal ko ci ndox wala jël ci kudd gu kudd gu ndaw suy ko ci la ngay lekk wala suy ko ci la ngay naan waaw bu dee doom yi nga eh, jël ci doom ñett ba juróom ci bés bi waaye nga tàmbale toujours ci li gën a yem te it nga bañ koo jël te lekkoo dara kenn du ko jël fekk yaa ngi xiif mën na laa sonal lu bëri protéine la nag am na it ñuy tuddee fibre ak potassium ak calcium ak fer ak magnésium ak phosphore ak vitamine A yooyu yëpp da ko ca fekk moom doomi nebedaay yooyu njëriñ yiñ ko xamal nag mooy wàllu métit métitu yaram rhumatisme am na ci solo lool bu dee yaa ngi koy jëfandikoo mën na la cee dimbali waaye eh, am na it ferñeent wu ñuy tuddee antioxydant moo tax di ko jëfandikoo dafay aare ci yenn xeetu cancer yi waaw ak tawati xol yi baax na ci ñi am tawati xol yi bu mu ci mën a doon soo koy jëli dafay tax sa deret ji daw normal sa deret du sa way moo tax dafay aaree ci ñaar yi mooy tension bu yëg ak li ñu tuddee AVC ak ñi nga xam ne dañoo manqué deret ñoom it nañ leen ñu koy jël ak euh, ñi nga xam ne seen deru yaram day far dem ay tawat ay xam ak ay heure ak ay ak yu tegu deru yaram bi moom daal boo koy jël day tax sa deru yaram yaa nji day tax doo doo doo doo nekk ku gaaw a ras waaw la ci aar waaye lu baax la ci eh, jabet waaw nañ ko jabet gi waaye ku amagul jabet di ko jël daf lay dimbale ba su suukar du yëg waaw te dafay dindi cholestérol bu bon waaw nañ ko nag ci wàllu ki nga xam ne su tëddee du nelaw dafa amee insomnie nga jël ci bu boobaa digg kuddu gu ndaw seeyal ko ci sa kaasu meew guddi gu ne mën na laa dimbale ci yow mi nga xam ne danga eh, ñàkk a nelaw ba ci méttitu biir baax na ci waaw ba ci coono rek daf koy wàcce ñi amee coono yenn xeetu coono yu tar ci seen yaram mën nañ leen koo digal waaw waaye digal nañ ko góor gi nga xam ne it eh, dafa mel ni wàllu ndoxam demeewul noonu man yu bi moo desee mucc ay ni mbindoo am na feebar yu bari day jàpp góor ci wàllu seen wàllu ndox te di ko jëfandikoo dafay dooleel góor ci anam boobu waaw dafay dool am ñi nga xam ne seen ndox dafa néew ay ferñeent am ñi nga xam ne ferñeent yi ci war a nekk mooy xeet wala njeen yu amu ca góor ñooñ li ëpp dañuy am gàllankoor ci am doom bu ko defee bu dee ñi ngi faral di jël doomi nebedaay yi mën na leen cee dimbale bu baax a baax kon nag ci gàttal daal yi daal yenn la ci ay njëriñam eh, yow mbokk mi nga xam ne yaa ko doon laaj eh, jël ci benn ma ñëwaat ci yow mi ko tàmbale tey de ci jël benn suba ngoon soo xoolee doom bi nga génne doom bu am màndarga gerte gi ci biir nga yéey soo ndékkee soo reeree sa yaram bu ko miinee mën nga jël ñett mën ngay jël juróom waaw ba juróom-ñaari doom sax mën nañ ko jël ci bës bi waaye del tàmbali toujours ci doos bu ndaw te bul xiif mu ko jëfandikoo ko ndax bu boobaa mun na la sonal lool waaw da ngay lekk bu suur bu boo bëggee eh, jël doom yi kon nag loolu mooy leeral yi ñu ci mënoon indi eh, xam naa balaa ma tëj waxtaan yi ma fàttali mbokk yi nga xam ne ñu ngi may déglu man professeur Abbas garab gi nga xam ne yàlla dogal na maa ko liggéey tuddee ko la roquette muy faj wàllu néew kàttan ci sëy te nga xam ne bëri na ci jamono ji góor ñi nga xam ne amee nañ boobu gàllankoor mu yàgg ci ñoom walla mu doog leen dal moo ci yem waaye ginnaaw loolu baax na ci wàllu seere ak ballonnement ak yaram wuy metti baax na ci coono waaw ma mooy biir yooyu di ëf ni lu am ngelaw wala biir bu bari graisse nga xam ne borom bu lekkee di yéex a rees te day faral di seere te bu yàggee dina ko jural mën na ko jural hémorroïde jëfandikoo nag doom yi mën na la ci dimbale bu baax a baax waaye li ko gën a yëkkati nag mu ñëwaat ci mooy faj wàllu néew kattan góor ñi nga xam ne dañoo néew kattan ci wàllu kër gi ci wàllu sëy waaw ñoom garab gi yéen lay waxal boo ko defee yow mi ko soxla man sama numéro mooy 77 786 65 19 ñi dëkkee dakaar mën nañ cee woote su dee ñi dëkkee Touba sëñ Moustapha Diop moo ñu nekkal numéro 76 383 87 34 waaw waa Touba mën nañoo woote ci numéro boobu suñ soxlaa ci garab gi su dee waa Mbour imam Diène moo ñu fa nekkal mën nañ ko woo ci 77 636 66 36 su dee ñi dëkkee kawlak mën nañoo woo oustaz Alioune Faye ci 77 121. 79 46 su dee waa Thiès ak li wër Thiès mën nañoo woo Pathé Gueye sëñ Pathé Gueye numéro am 70 564 66 51 su dee waa Kaarang ba waa Gambie yëpp mën nañoo woo Baye Idrissa Ndiaye moo ñu fa nekkal numéro am 77 611 55 85 Ndar Géej ak li wër Ndar. waa Louga sax war nañ ko mën a woo ñoom tamit suñ ci soxla moom Baye Diop moo ñu fa nekkal numéro am 77 965 45 84 asalaamaaleykum wa rahmatullah